jéggale it munta ñàkk faw ay njuumte di am ay rëcc-rëcc di am suñu bëggee ànd dund ci jàmm munta ñàkk ñuy jéggalante loolu it am nañ ci bind bu am a am solo ndax yonente bi ak ñim àndaloon li leen noon yi teg li ko tàmbalee Makka ba ni ñu demee madinatul munawwara coonay neen la waaye teewul ba yàlla dogalee ñu ubbiwaat màkka bi mu ñëwee daf leen a jéggal ñoom ñëpp loolu lépp ngir bëgg ab société boo xamante ni jàmm moo fay am jëlale moo fay am jéggalante moo fay am waaye tamit maandute moo fay am beneen cëslaay bi mooy war nañoo xam ne xajoo du mbiru diine waaye mbiru nit la xajoo du mbiru diine du lislaam du beneen diine waaye mbiru doomu aadama la doomu aadama bu nekk war naa mën a xajoo moroom ja ak lu mu mën a gëm moo tax buñ delloo ci taarix àdduna bi ni muy doxe danañ ci gis ay kilifa yoo xam ne ñii ay jullit lañ ñii duñu ay jullit waaye ñoom ñëpp dañoo ràññeekoo ci wàllu xajoo nit ñañ doon dundal yónnente bi alayhi salaatu wasalaam lañ ciy jiital dafa ràññeekoo ci xajoo ak jéggale cheikhul xadim mi ñu gën a jege radiyallahu anhu dafa ràññeekoo ci xajoo ak jéggale lim daj lépp teewul ci cëppaandaw ko dafa jéggale Mahatma Gandhi du jullit waaye xajoo ràññeekoo woon na ci lool ci ñeneen ñi mu bokkaloon aw askan ak ñi nga xam ne bokkuñ woon sax diine Nelson Mandela ràññeekoo na ci jéggale ak muñ ak xajoo ak li ko noon bi doon teg lépp ñaar fukki at ak juróom ñaar mu nekk ko ci kaso bi ca bi mu génnee yàlla def nguur gi tegawaat ci loxoom teewul dafa jëllale jéggale ngir askan woowam mën a dund ci jàmm kon yooyu ay toslaay la yoo xamante ni faw ñi di ko bàyyi xel bi ci des te mooy tomb ñetteel bi mooy yan jeexit bu fekkee ne xajoo am na ciw askan yan jeexit moo ca mën a juddoo ci nekkeenu doomu aadama yi bi ci njëkk mooy ne xajoo ak jéggalante ak jëlalante ak nangu yeneen doom doomu aadama yi day dëgëral ab ànd di rafetal aw nekkin di jur bëggante ak warmaalante di def askan woowu nekk aw askan woo xam ne dañuy dimbalante dañuy jàppoolante ci seen biir ndax kenn ku nekk dana am xel mu dal ca moroom ba beneen bi ci des mooy xajoo doomu aadama yi day tegtale nitig doomu aad nitig nit ki day wane ne nit ki nit nite na day wane ne nit ki tamit ku civilisé la ndax mala yi rek ñooy def ko ëpp sa morom doole wan ko ko waaye doomu aadama bu nite bu civilisé dafa war a xajoo dafa war a nangoo jéggale nangoo yërmaan kon civilisation ak nite la koy firndeel bokk na ci xajoo doomu aadama yi xajoo doomu aadama yi muy at tasaamux tolérance day waral kaaraange muy sécurité ak stabilité akuk dal aw askan wum am dal dana fa am kaaraange dana fa am ndax kenn du ragal aw loraanga ci sa morom waaye jumtukaay la moom tolérance wala tasaamo jumtukaay la ngir tabax am réew yoon bokk na ci yoon yi gën a gaaw ngir ñu tabax am réew faw ña ko séq di xajoonte ci seen biir su amul rekk làmbi golo moo fay am ku man sa moroom wan ko mu doon nag loo xamee ni bu fekkee ne ki koy def jullit la yàlla wax na ne tiyaa ba ca cay juddoo man maa ko gàdd keneen warloowu kon ku bëgg tiyaabay yàlla day nangoo xajoo nit ñi ci seeni bang-bang yàlla day wax ni man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah innahu la yuhibbu zalimin kon ku bëgg yàlla yërëm la yàlla jéggal la yàlla yéwénal say mbir faawu nga nangoo xajoo nit ñi di jëlale seeni njuumte ca nangu ak wuute ci seenu nekk ngir tëj nag ndax li ñu joxoon ci waxtu dafa mel ne mi ngi bëgg a jeex dañuy wax rekk ni at tasaamu daruratun insaaniya wa ijtimaaiya wa diiniya munta ñàkk ay nit bu ñu àndee nañ xam ni loolu mënu ca ñàkk aw yoon la ngir tabax aw askan woo xam ne dañuy jàppalante ci seen biir dañuy dimbalante aw yoon la ngir tabax am réew moo xamante ne dañuy nangu wuute dañuy sàmmonteeg ak doomu aadama yi ak seeni warteef ak seeni liberté seeni sañsañ waaye dañ caa war a wormaal yoon nangu wuute ci xalaat niñ ko nangoo ci bind bind doomu aadama yi loolu nag xam gi ko jullit ñi xam rawatina jullit Afrique sowu jant moo taxoon ñu jàpp ngiirum imam Malik ca muy am ngiir moo xamante ni day sàmmonteeg nit ñi fa ñuy dund sàmmonteeg seeni njariñ muy masaleex sàmmonteeg seeni aada ak seeni cosaan muy al yooyu yëpp boo ko xoolee dafa bokk ci usul usuli ahkaam ci madhabul maliki al urf al ak yeneen yi ci waaye gis nga ko aada yeeg cosaan yi yooyu yëpp ak maslaha bi da ko bàyyi xel loolu it nag moo tax Serigne Touba radiyallahu anhu moom it jàppoon pas-pasam muy aqidatu ahli sunna wal jamaa moom la defoon muy pas-pasam ca mooy li ëpp ci àdduna bi lañ gëm ca ngëm-ngëm boobu dafa ràññeekoo digg doomu ak moytandiku ëppal ci lépp looy def ak lépp looy gëm Serigne Touba loolu la jàppoon aqidatu ahli sunna wal jamaa ci wàllu fiq mu jàpp ci ngirum imam Malik tabax ci ñaar yooyu nag ci la tabax yareen bi mu doon yare njaboot gi ak taalibe yépp mooy li ñuy tudde yoonu murit manhaj tarbawi at tajdidi li Cheikh al Xadim ñu ngi ko tabax ci aqidatu ahli sunna wal jamaa tabax ko ci fiqh imam Malik ndax li mu ràññee ci ak digg doomu ak yaatal ak sàmmonteeg nit ñi li ñuy dund ak seeni aada ak seeni cosaan ak seeni njariñ looloo taxoon mu jàpp ci sant taalibe yi tamit ñu jàpp ci bu baax a baax kon buñ bëggee am réew moo xam ne jàmm moo fay am ñëpp jàppante kàddu yi nekk benn ñu am kilifa faaw ñu tënk nit ñi ci lenn benn gëm-gëm ca bàyyi bañ leen bàyyi ñu mel ne jur gu tasaaroo loolu nag day tegtale rekk ni lislaam diiney xajoo la diiney yombal la du diiney forcé kenn ak not kenn ci lu mu gëmul kon suñ bëggee yëngu-yëngu yi am ci àdduna bi dañoo war a delluwaat ci valeur yu mel nii muy tolérance ngir li fi àdduna bi toll ci ay yëngu-yëngu ci ak jëfandikoo doole ñu wàññe ci jamono ji ñu toll loolu nag yaakaaruma ni jëfandikoo ngànnaay moo ko mën a lijjanti dañoo war a dellu ci yar ci jàngale ak ci tawiya muy leeral ngir lijjanti jafe-jafe yi ëppal yi ak ñàkk xajoo yi ak jëfandikoo doole yi am ci àdduna bi ndax àdduna bi fu na loolu la gën a soxla koom am na technologie am na xam-xam yaatu na egg ca yomb na léegi waaye nit ñi léegi ñoo xajoowul seeni moroom loolu nag faw ñu delluwaat ci li ñu fi mag ñi bàyyi ci ay valeur yu am solo lu mel ni que valeur bi ngir réew mi jàmm ji mu mën a nekk ngir mu nekk jàmm ji mën a wëy ngir it sawara si ci gis mu tàkk fu nekk ci àdduna bi yàlla musal ñu ci mu bañ cee egsi mu bañ a egsi fii ci réew mi maa ngi taxaw lu foofu di jégalu bu baax a baax su fekkee ne guddal naa di yeesalaat sama cant ak rafet rafetlu jotaay bi ci mbooloo jëmale ko ci mbooloo mi amal jotaay bi jërë jëf